وآله وصحبه واغفر لمن يقرأ النظام في كل زمن وهب له جملة ما تختار له لديك إنك المختار وختم علي من ذنوبي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 wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki dëkkandoo yi seen mbokk Abdoulaye Dia moo leen bu baax si njiital jawriñu daaira Tuubaa Xelkom ñu am nag bis boo xamante ni dañ ko dañ koy taxaw taxaw ngir sant Serigne Touba Xaadimul Moustapha si njiital Cheikh Salihu Touré mi nga xamante ni moo fi nekkal Serigne Touba fii ci Thiès wa ayadahu llah wa nasara ak Cheikh Mahamadul Muntaxa mi nga xamante ni mooy xalifa général de Mouride yal na yàlla yokk ak wéram te gudda fanam te aar ko te sàmm ko te barkel ko ba mu bëgg a liggéeyal sëriñ bi suñ borom def lu kawe njottam bi barakat Cheikh Ahmad Bamba sant gi nag dañ koy def ngir sant sëriñ Touba ci jagle gi suñ gi ñu ko suñu borom jagleele ndax sant sëriñ Touba moom la war la ci mbooleem jullit yëpp ak mbooleem sénégalais yëpp ak mboolem africain yëpp. ndax Serigne Touba bi mu demee si géej gi ba ñëw dafa woo mag ñi ni leen bu fekkul woon yéen ñi nga xamante ni yéen aju si man bu ngeen aju woon si man lu ngeen baax baax du ñàkk bu ngeen faatoo dem sawara donte fekkee ab diir ngeen fi am sax doo dem aljanna bi anna lazina taxallahoo biya law laa taxallahum biya la daxaloon naar baxda mawtihim wala muddatan xabla duxooli duxoolihimul janna jannata lati waxidal muttaqoon kon loolu rek jaar na kon ñu sant seriñ Touba te sant Serigne Touba kenn ku si nekk dalaa war rawat na ko aju si moom ndax la mu wax ndax su borom benn noon rek la bind jaam bi mu am ko muy seytaane te Serigne Touba moo ni képp koo am aju nga si man mucc nga si seytaane ak la si aju najjayta man biya taxallahu maha min asayatini fa sukri yasmaa loolu boo demee sa wakkaan xaqan da nga ko sa gis waaye nag sëriñ bi nekkul fi woon ñi nga xam moo aju si ñoom dong mboolem umul islam bépp la fi nekkuloon muy jullit yëpp kon ñu ngi si woo jullit ñëpp di si woo nag mboolem koo xamante ni yaa ngi ci gox bi di si jiital nag ki nga xamante ni mooy délégué de bi muy délégué délégué de quartier moom euh, r ñu koy wax Serigne Mamadou Mar Ndiaye doon taalibe si Abdou Khadir doon ku baax di sama xarit am yitte lool ci quartier bi am pas-pas ak taxawaay ko ñu ngi ko siy woo ñu ngi woo tamit délégué de quartier r euh, ñu koy wax Serigne Ousmane Diaw moom it ñu ngi koy woo ak mboolem rsa 102 gi yëpp kim délégué tamit suñ koñ bee di euh, Rebene muy sëriñ Abdou Diallo ñu koy wax bay Gaynde moom it ñu ngi koy woo ak mboolem ku muy toogal foofu ci jataay ba Baye Ibrahima Cissé ak euh, Baye euh, Mamadou Mamadou Dieye ak maanaam euh, bay Papa Gueye ak ñes aju ñëpp. ñu ngi woo tamit ñi nga xamante ni ñoom lañ bokkal liggéey bi muy ñu jàng ñu jàng alxuraan di jiital nag raabate bi nga xamante ni moo lëkkale mbootaayu jàngalkat alxuraan yi nekk Thiès. te nekk si réew mi yëpp te sëñ Mor Khary Gueye jiite ko fii cité Senghor te muy barab bi faasanti ko ci ci réew mi ñu ngi woo ñoom ñëpp ñu jàpp ci liggéey bi ci alxuraan ak yas aju naka noonu tam ñu ngi woo ñi nga xamante ne ñoom la yàlla teg ci gox bi ñuy maanaam euh, jiite diine ji ku mel ni ki juma e, jàkkay sëñ Baye Cheikh Faye si turu sëñ imaam Diallo ak sëriñ Habib Mbuub moom ñu ngi ko si woo ak mboolem waa jàkk ji yëpp naka noonu tamit jàkkee fay gee nga xam ne jumaa yi fay ñu ngi leen di woo si njiital imaam euh, ima euh, jaw Diaw imaam Diaw ak mboolem ñoo xamante ni ñoo ko ñoo ànd moom liggéey ba naka noonu tamit ñu ngi woo suñu jumaa ji nga xamante ni mooy jumaa yi daaru mu jumaa yi murit te njiital Serigne Mbaye Dia ñun ñii ñu topp si moom ak ñoom Baye Tafsir euh, Cissé moom mi nga xamante ni moo nekkal Serigne bi foofee ci daaru salaam ak Baye Ndonga Sambu ak sëñ Mbay ñi nga ak ñes aju ñëpp di jàll rek daal di jox ki nga xamante ni mooy jëwriñu mbooloo mi di sëriñ Mouhamadou Ba di jëwriñu daayira Touba Xelcom nekkal fii si gox bi sëriñ Saalihu Touré ak mbooleem ndaw ñi nga xam te ñoom lañ ko àndandool kon jëwriñ kàddu gaa ngi noonu bisimilah ala alihi ñoo ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di jiital sunuy kàddu nag sant sunu borom tabaraka wa taala mi nga xamante ni moo nu mayoon ñu fekkee daaw moo nu mayaat ñu fekke jotaay bii ren bay waajal sunu bis bu tedd bii nga xam ni amul benn bis bi ko gën a kowee ci ñun ci diine lislaam bis bii bis bii mooy sunu lépp bis bii mooy sunu yaakaaru àdduna mooy sunu yaakaaru àllaaxira biis bii lañu fase sunu defarug àdduna bis bii lañu fase sunu defarug àllaaxira bis bii bu amul woon gëw ni ne juddu sax bay dooni jullit ni ko ku tedd ki waxee te sëñ Moussa Ka ko bu dul koon ak demam bii wolof nasaraanu te kon billaahi ñëpp dem niiraani moom seexul xaddim ñun tamit loolu lañuy wax ni bu dul ko nag bis bii nu yàlla dimbilee def ci suñuy xel sawar ci suñuy suñuy cër di soññ suñuy alal mu néew mu bari ni de ni jublu leen ko sante ko sëñ Touba ci lim leen defal bu amul woon si ñun duñu duñu duñu doon lenn am gi mu am nag ci coobare sunu borom ba yàlla dinu dimbali boobu ba léegi ñu koy taxawee ci lañuy sant yàlla sunu borom mi nu bind di ko wax sunu làmmiñ di ko feeñal ci sunuy cër mooy alhamdulilahi rabbil alamin ñoo ngi koy sant moom buur bi te tabaraka wa taala bu baax a baax a baax a baax ci fekk gi mu nu ko fekk loo waat di ñaan yàlla na nu téyel bis bi ba nu yegg ca ci jàmm téye sunuy jëmm téye mbooloo mi ak julli ji ko fas yéene ànd ak ñun ak ñi am yéene te sax ñëwunu fi ba nu yegg ci bis ba ak jàmm ba li nu ci yéene lépp ngir sàkku ci ngërëmal sëriñ Touba sàkku ci ndimbalal sëriñ tubaa sàkku ci texe mbooleem kuy dégg bis bi wala nga dëkk ci koñ bi ci dëkk bi réew mi ak texe yàlla defal na ko ci sunu borom ñu ngi la koy ñaanaat ginnaaw bi nga nu mayee lii ndax yaa wax ni la in sakkartum la sant leen ma bu ngeen santee ma dolli leen kon buur bi tabaaraka wa taala ñu ngi lay ñaan nga dolli nu loolu ci barke Muhammad barke xaadimul Mustafa mi tax ñu taxawal bis bi bis bi nag nekk na bis boo xamante ni tëbuñu tëb def ko waaye ceen koo jaare ci ndigal ndax euh, waatul bi yow tamit ab waa bi xaar nit ku nekk lépp looy def wala fooy dugg na nga jaar ci bunt ba moo tax bi nu jógee rek dëgmal sëñ Touba di ay ndaw loolu sëriñ bi orienté ki nga xamante ni mooy jàmbaarul islaam ki nga xamante ni mooy ki nga xam ne ku wéeru ci moom dégg ay ndigalam toog ci kippaaram nu ko ab yaram di ca tàggatu di ko doxe sëñ tubaa dana bëgg ci yow te da nga doon taalibe bi nga xamante ni moom la sëñ tubaa gën a bëgg kooku kan la mooy as Cheikh Saalihu ture yàlla na fi gën a yàgg loolu tànn ko wér moom mi nga xamante ni moo fi nekkal sëñ tubaa Cheikh Abdoul Ahad Mbacke waxoon ci moom wax ju réjë ni indi lu ma leen Cees imaamu jàkka wala jumaa waaye yéen waa Cees ki ma leen indil mooy ku leen yeggale ci yàlla ba mu ko waxee waa Cees ñëpp daal di taxaw suñu Saalihu Touré leeral waxi sëñ Abdoul Ahad Mbacke ja daan ni wax ni ma koy firee ak ni ko war a déggee ba doxee ko ni mu yomb mooy yàlla moom nekkul jëmm joo xamante ne day toog fee rek ma jàpp ci seen loxo di leen waaxu ban leen yàllaa ngi demeewul noonu na mu demee mooy yàlla danu fee indi ngir ñu jaamu ko damay nekk ci jaamu yàlla tegu ci ak njub di liggéeyal sëñ tubaa soññi leen ci ànd koog yéen rek loolu daal ku ma ci roy jàppal ne yaa ngi ci yoon ba nga xamante ni yaa ngi dëgmal suñu borom kon loolu la suñu Abdoul Ahad Mbacke wax moo tax bi ci ñi am ndimbal tënkoo ak ñi yàlla nar a dimbali koo ci gis kenn ku nekk mel na ni sëriñ bi bëgg ñu nag ci ndimbal loolu nag lañu sëñ Tuubaa dugal ñu nekk ci kippaaram déglu ay ndigalam di fa mooy ay tereem di sàkku lépp lu ñuy def ci sëñ Tuubaa bala ñu koo xalaat la dem ci moom wax ko ko mu jox nu ci ndigal taraal na su yoon wi ñu war a jaar ba yegg ci bis bi loolu nag moo tax bi ñu jógee ñun xel ko Xelkom am laxasaayu liggéeyal suñ Touba ci daayira danoo sukk ci kippaaram mu tuddee nu Touba Xelkom jox nu bis bii ñu ngi sant sëñ Touba at mu jot yemul ci jox nu ko rek waaye saa bu bis bi jotee day bàyyi day bàyyi ay yitteem ñëw sagal nu ci jëmmam sagal nu ci ay kàddoom soññiwaat nu dalawaat dalalaat suñu xel ba nu gën a am cawarte liggéeyal sëñ Touba. kooku nag mooy Cheikh Saliou Touré mooy boroom bis bi moo jiitu ci bis bi moo mujj ci bis bi ndax moom lu mu nekk sëñ Touba nekk ca waaye lu mu génn sëñ Touba génn ca te sëñ Touba moo ni sëñ sëñ moo ni ma samee bant sax nga romb ko. da ngaa jëfee sa bakkan waaye jëfe woo ndigal rawatina doomu aadama te li may def ci nit doomu aadama topp leen ak mbooloo bu ma ko defoon ci bant ñu topp bant ba te duñ fa jóg waaye li muy jafe-jafe ak a yomb yomb ma jóg julli ñaari rakk moo gën a jafe ci man ma def loolu te Cheikh Saliou Touré mii Cheikhul xaddi moo ko teg loxo moo ko liggéeyloo moo ko bàyyi ci dëkk bi ñu àndandoo rek laxasaay topp ci ginnaawam fas yéene lu mu ñu digal ñu def lu ñu tere ñu ñu bàyyi at mu mu fi daan ñëw kon bis bi moo si jiitu mooy borom bis bi ñoo ngi ñaan suñu borom yal na ko fi yàlla gën a gën a yàggal bi mu demee ba toll fii tamit ak mag dugg toll fi tamit nga xamante ni lii ñuy wax sax jàpp nañ ni mu ngi jàkkaarloog ñun ndax nitu yàlla moom yaay jàpp ni eh, fii la tollu waaye sunu borom moom fa ko teg rek fa lay toll kon jàpp na ni jëmmi Sëñ Saliou Touré ji mi ngi jàkkaarloo ak ñun la koy firndeel mooy bi mu toll fii nga xamante ni eh, jéego yi xaw naa xat léegi taawam bu baax bii di a seex sa seex seex seexul xadim seex Touré nga xamante ni lan daan jaare ci waajuram wa nga xamante ni yu si bari léegi moo koy dox doon tànkam doon loxoom doon fépp fu mu daan dem mu fay dem moom Cheikh sëñ Cheikh lan jël ndigal li ci moom wax ko ni ko bis baa ngi jige si mu joxaanu ndigal lu nu waajuram bu baax doon jox àndaat ko ñun teew fi daaw déeg teew fi daaw fas yéene fee teew ren ni mi ngi koy ànd ak ñun ni ko waajuram bu baax doon dem loolu daal li muy firndeel ma bëgg ngeen dégg ko mooy ñun fi nu war a jaar lan jaar ki nu war a jaarale moo nu fi jaarale muy Cheikh Saliou Touré te ku nekk ci dëkk nag mu wax ni sëriñ tubaa moom lay laaj Cees bu ëllëgee nga nekk Cees di liggéeyal sëriñ tubaa te uufu woo ci moom boo demee bu ko sëriñ tubaa laajee Cees yow doo ca bokk bañ loolu dalul nag moo tax ñu uufu ci peggoom lu ñuy def defe ko ci ndigalam lu ñuy bàyyi bàyyi ko ci ci ci ay tereem ñu ngi ñaan yàlla sunu borom yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal bis bii ñu dëgmal tamit yàlla na ci yegg ak jàmm. di ci sant jàmbaarul islaam yi nga xamante ni wax na ni mboolem li yàlla bind. sant na ko moom Cheikhul Khadim kon ñun ñooy jëmm yi nga xamante ni ñoo gën a néew ci ñu koy sant ñoo gën a tuuti ci ñu koy sant te ci sant lottu nañ ci na moo nga xamante ni noonu la sëñ bi woote woon ci cantuk boppam gi muy sant boromam nga wax ni képp koo xamante ni sama mbëg sa mbëg la man Cheikhul Khadim bu la bis bu tedd bii fekk te ci ko suuf muy 18 safar nan ma ci santale yàlla ndax li ma yéenee sant ko sunu boroom moom Cheikhul Khadim lottu na xeeb na ko lool ba tax na mu sàkku jullit yëpp ak koo xamante ni mbégum sëñ tubaa sa mbég la rek nga santale sëñ tubaa boromam ci màggal googu ñun tamit woote boobu rek la ñuy woote ñun tamit sant gi nu am yéenee sant ko sëñ tubaa suñuy jëf suñuy cër suñuy xalaat suñuy jéego lottu na ci te lafañ na ci moo doon ñu bëgg nag mbooleem kuy dégg suñu kaddu mu di jullit mu di kilifa diine mu di imaam mu di jàngalekatu alquran mu di koo xamante ni chef de quartier nga ni ko sëñ Abdoulaye Dia waxee ñoo ngi ci woo ñëpp di ci woo dëkkandoo yi bàyyiwunu kenn bàyyi bàyyiwunu fenn bàyyiwunu ñenn di sàkku ñëpp ànd kook ñun ngir yàlla jëmmi cheikhul xadim lu ci waaye def rek xeebuñu ko waaye naw nañ ko yàlla ci daje ngërëmal cheikh ahmadou bamba xaadimul moustapha di si woo nag ki nga xamante ni moom la yàlla dénk nag koñ bi muy monsieur le maire maître Ousmane Diagne ñoo ngi ko ci woo bu baax te di ko ci jiital nga xamante ni moom la yàlla dénk gox bii mu yor ko ci wàllu maire bi kon maître Diagne ñu ngi ko ci woo ak mboolem ñoo xamante ni njaboote na ko di ko séntu ci bis bi di ñaan mu ànd kook ñun ni ko suñ Tuubaa bëggee yàlla nañ ci dajeeg ngërëmal Cheikhul Xadim. asalaamualeykum maa ngi wax auzu billaahi mina seytaani rajiim laa xawla wala quwwata illaa billaahi bismillaahi rahmaani rahiim ñuy sant yàlla bu baax di sant Serigne Touba di sant le bëgg ku ñu sant le Serigne Touba ndax ñun amuñu lu muy sëriñ Touba su jàmbaat sañ-sañ mu taxaa di ñaan mu yàgg fi lool te wér ci daraja yonent suma tedd maa ngi man numbe maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp sama doom yi nga xam ne dañoo jóg yor daayira bi bëgg sëriñ Touba ànd ak sëriñ Touba jàpp bés bi di ko def booba ba léegi te heure bu ñu ko def yal nañ ci dajee nga ngërëmul Serigne Touba rek moom lañ ci wut ñuy woo nag mbooleem koo xam ne kii ne ci koñ bi nga dëkk mbooleem koo xam ne ci koñ bi nga dëkk ngay góor ngay jigéen surtout nag jigéen ñi ma bëgg ñu teel a solu ñëw ca tànt bi teel xëy si ñëw ci liggéey bi ndax liggéey cant gi day yendu dañuy xëy ci suba di togg ay xéewal di bernde ba jant bi so ñu fanaanee sikkar di sant Sëriñ Tuubaa ba bët kon may woo ñëpp nag bàyyiwuma kenn maa ngi woo daayira yi nga xam ne ñoo ne ci koñ bi bu daayira bu fi nekk rek woo naa mm. muy suñu daayira bii di Tuubaa Xelkom jiitu ci daayira xayaa mbay kër daba sëy kumba caam ñoom ñoom seen a jóob maa ngi woo ñëpp marché Xelcom bàyyiwuma kenn ñëpp maa ngi leen di woo bàyyiwuma kenn ku bokk ci marché bi rek maa ngi lay woo ci bis bi bëgg nga ñëw jàpp ci jàppale ci jàppale ñu suñu xale yu baax yi defuñu dara lu may diine tëgguñu dara lu may lislaam rek moom lañu fi nekk di sant rekk nag di leen sant di leen ñaanal yàlla yal na leen yàlla yeggal ci mu dajeeg ngërëmul Serigne Touba ndax lii rek ngeen man wax dëgg yàlla nekk ci liggéeyal Serigne Touba rek loolu ngeen di woote kon yal na leen yàlla jàppale yal na leen yàlla sàmm yal na leen yàlla làq fa yàq yëgul ñoo ngi ñëw ñëwoo ñëpp bàyyiwuñu kenn. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp ci si baatu laa ilaaha ñëw toogaayu daayira bi rek toogal waa bi ñëpp jëwriñ ak yaay faali suñu cant gi moom moom lañu am taxawaay cant gi nag ñoo ngi ciy woo ñëpp bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu tiijaan bàyyiwuñu laayeen bàyyiwuñu ñaseen képp ku baatu laay laa ilalaa rek ñoo lay woo di gërëm nag jëwriñ Pape Ba bu baax a baax ñoo ngi koy defee ci monument jàmbaar le 13 di samedi ñoo ngi woo ñëpp du woo daayira maam jaara poroxaan bàyyiwuñu kenn du woo waa marché bàyyiwuñu kenn képp rek muy mag muy ndaw bàyyiwuñu kenn ndax bis bi lañu am bis bi la ñëpp am ndax sëñ tubaab mi dem si géej gi ñëpp la demal kon suñu bis bi moo ñu ñor képp kuy jigéen woo nañ la ci kon ko sama yaay waxee ñu teel a ñëw teel a jaayante ci liggéey bi teel a ñëw solu toog ca tànt ba lépp pare waaw sant ak gërëm na gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit di ñu ngi seer ñëpp rek te di leen jox seen wàccuwaay bu baax tey ñaanal Seex Mouhamadou al Muntaxa Mbàkke al Basir saa borom yàlla yàggal ko fi ba yan bi nga xamante ni moom na yàlla mooy liggéeyal Sëriñ Tuuba Seexul Xadim woyofale ko ko tey santit suñu buntu ci sëñ Touba fii ci Thiès muy sëriñ Saliou Touré nga xamante ne cant gi ñu ngi ko amee ci ndigalam ñuy def cant koo xamante ne nag sant sëñ Touba dañ ko tuddee sant sëñ dafa doon loo xamante ni lu war ci suñuy jëmm la ngir sëñ Touba ñun rek la demaloon te mu nekk woon ak suñu jëmm yi benn saa du ko fi def kon nag di ko sant loolu daf ñoo war fu ñu mënti toll rawatina nag bis boobu la ñuy def fii ci monument jàmbar mu nekk le 13 mai ñu di ci sant Sëñ Tuuba di ci woo booleem jullit woo xamante ni rek ngi naan asadu an laa ilaaha illallaah wa anna muhammad rasulullah ñu ngi la ci woo bu baax a baax a baax te ci woo këru kilifa yi nga xamante ne ñi ngi ci dëkk bi te dund Serigne Touba rek ngir Serigne Touba moom defal ko bis rek loolu moom mooy li ñu war te it dem gii mu demit ñun rek la ko demal ndax wax nañ ni bi Serigne Touba di jógee Mbàkke Kajoor di jëm Mbàkke Baari waxtu woowu noonu mu ngi war fas woo xamante ni mi ngi tudd awnullaahi wax nañ ni Sëñ Tuubaa bi mu yëggee ci ndigalul yàlla awnullaahi wax nañ ni Sëñ Tuubaa bi mu yëggee ba ci Louga dafa maye fas woowu noonu yëg ci saxaar bi kon de dem Mbàkke Bari bi mu demee Mbàkke Bari bi mu tunnee ba yegg si waat Louga ñu ngi ko tuddee fas bu tudd ridandaahi ngërëmal yàlla kon kooku mat naa defal bis ñu ci woo mbooleem koo xamante ni rek mu ngi ci dëkk bi tey dund Sëñ Tuubaa te dund gi Sëriñ Tuubaa doon loo xamante ni lu wér la ci moom te ñu ciy woo mbooleem kilifa diine yi te ciy woo mbooleem sëriñu daara yi da ciy woo mboolem daayira woo xamante ne rek mi ngi ci dëkk bi tey dund Sëñ Tuubaa ñi ngi la ciy woo tey ñaan saa borom yàlla rafetaloon ñu bis bi laytaale laytaayal ñu ko ci xasida ak alxuraanul karim ba li nga xamante ne am nañ ci yéene ci liggéeyal ko Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa mën ñu ko defaral te mën ñu ko sottale wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bu ñu santee yàlla julli si yonent bi di sant si ñaar waajur di sant Sëriñ Tuubaa suñu wasila di ñaanal Seex Muntaxa Basiir yàlla bàyyi ko fi kanamu njaboot gi war naa gi mu fas yéene liggéeyal sëriñ Touba yàlla bàyyi ko ba mu àggale ko ci barke borom Touba di koy ñaanal sëriñ Modou Mendel Fall yàlla bàyyi ko fi kanamu njaboot gi war naal gi mu fas yéene liggéeyal maam Seex Ibrahima Fall yàlla àggale ko ci kàttanu yàlla ak baaxam dara jël sëriñ Touba di koy ñaanal Seex Saliou Touré suñu yaakaar tey ak ëllëg di koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi kanamu njaboot gi ba liggéey gi mu liggéeyal sëriñ bi yàlla àggale ko ci kàttan gi yàlla ak baaxam dara sëriñ Serigne baax sama mbokkum taalibe yi nga xam ne ñoom laa bokkal waaj bi ñoo ngi leen woo si bu baax a baax soxna góor yàlla yeeg ñëpp nañ takk bu baax a baax te xam ne amuñu suñu bis bi bis bi rek la am moom la ñuy liggéeyal sëñ bi nañ góorgóorluwaat bu baax a baax di woo waa Loyen nag waa Loyen ñoo ngi leen woo bu baax a baax di woo sama waa kër sëriñ sëñ Seexu Naar Mbàkke ñoo ngi ko ñoo ngi woo waa këram ci lañ woote ci bis bi bis bi rek lañ am. bisimilah barke borom Touba ñu ngi siyaare waat baax mboolem jullit yëpp ak mboolem mbokk taalib yëpp rek comme nu ko mbokk yëpp waxee suñu bis bi ñu daan def sak at moo jub si di ci woo nag mboolem mbokk taalib yi ne ci dëkk bi yëpp. di ci jiital nag ah, waa kër Serigne Saliou ture mooy diwaanu Mouridina bi nga xamante ne Serigne Sidi Gadiaga moo ko jiite ànd koog mboolem daayira yi aju ci Serigne Saliou ture ñu ngi leen ci woo bu baax baax a baax a baax. Euh, bis bi nag nii lay tàmbalee buñ xëyee ci jeudi bi muy ci talaata bi dinañ def guddig maam Cheikh Ibrahima Fall ànd koog Lamp Thiam Baye Fall ak waa daayira Wakana bu noppee jàll ca samedi ba ca 9h ñu jàng alxuraan ànd kook Serigne Mbaye ja bu noppee ci loolu dinañ fa amal durus xasida ci mboolem daayira yi teew ci bis bi bu noppee daal fay am rajas rajas Nuuru Daarayni ànd koo yeneen mbokk taalibe yi di ci jiital sëriñ Ousmane bu tajawudu tajawudu Chubaan ak sëriñ Baye Demba Thiam bu noppee daal di wéyal njàngum xasida mi ci ay kuréel ànd koo kuréel Nuuru Daarayni bu Dakar kuréel Taysirul Asir kuréel tajawudu kuréel Majmahun Nurayni kuréel de Majmahun Nurayni kuréel de kuréel un Xuyuurul Maayidi ak kuréel Nuuru Absar ak kuréel tajawidi bu buñ demee ba ca taqusan ga Serigne Xaadim Fay dina fa amal njàngum rajas buñ demee ba ca timis ga ñu xaar Serigne Cheikh Touré mi nga xamante ni Serigne Saliou Touré moo daan teew ci bis bi moom moo koy teewal di ko xaar ànd koog di ko xaar ak mbooleem kuy njabootu Serigne bi rek ñu ngi lay xaar ci bis bi ci cérémonie officielle bi bu noppee daal di xewlu daal di tàmbali nag ñaareelu xaaju guddi gi ñaareelu xaaju guddi gi nag ñu ngi koy tàmbali ci ay kuréel xasaayit di ko njëkkee ci waa daayira Hizbut njiital Serigne Dame Gueye waa daayira mañ moo nóoree ni ñi nga xamante ni ñoom lañu àndal liggéey bi ren ci njiital Serigne Saliou Fall ak waa daayira Makaarimal Axlaax ci njiital Serigne Mara Serigne Mara ak waa daayira Maayabul Xuddus bu noppee ci loolu ñu continuer njàng mi ba deux heures Serigne Abdoulaye Thiam dina fa amal waxtaan euh, deux deux heures ba trois heures trois heures ba fajar nag ñu amal njàngum awu njàngum xasida ci wàllu awu sëriñ Mamour Sougou ak sëriñ usmaan Faye bis bi nag comme ni nga ko waxee nii rek noonu lay demee wutuñu si du ngërëm la képp koo xamante ni ngërëm la sëñ Tuubaa moo la ñor rek lay woo ci bis bi ndax bis bi moom sëriñ Saliou Touré nangu na ko benn bu dul kon nag képp ku ci dëkk bi di ñu ngi lay woo ci bis wala ñu ngi lay woo ndax amuñu lu dul bis bi ku ci jàppale rek yàlla sëriñ bi fas say aajo barke borom Tuubaa mbokki jullit yi nga xamante ni noonu la ko suñu mbokki waxee kon bis bi nag kañ la le mais ñu ngi ci woon ak mbooleem boo xamante ne yaa ngi naan asadu an laa ilaha illallah asadu anna muhammad rasulullah ñu ngi ciy jiital daayira muxtafiina bii nga xamante ne ñoo àndandoo liggéey bi fii si R100 monument jàmbaar di daayira muxtafiina bu Serigne Xaya Mbay ginnaaw loolu ñu ngi si woo daayira tësow di si xaar bi nga xamante ni suñu jëwriñ sëriñ Mouhamadou si ànd koog suñu jëwriñ ji sëriñ Mouhamadou Ba nga xamante ni saa su nekk mu ngi suñu biir ñu ngi koy woo si daayira si euh, cant googu ñu ngi si woo tamit daayira nooru daayira ni bu soxna maam jaaratullahi jiital soxna Ndey Faatu Fall ñu ngi koy woo si daa si cant googu ñu ngi ciy woo tamit daayira sopp Serigne Fall yi nga xam te ne ñooy suñuy waajur si njiital Serigne Papa Ndaw ak sunu yaay Ndey Ami Gajaga ñu ngi leen di woo tamit si bis boobu ñu ngi woo tamit daayira Safinatu Amaan bu Serigne Basiiru Seck nekk fii si Daaru Salaam ñu ngi koy woo si bis boobu ñu ngi woo tamit euh, daayira bi nga xamante ni mooy daayira Maayil bu Xuddus ñu ngi leen di woo si bis boobu di si woo euh, daayira Wakaan Xàqanik Serigne Cheikh Diop di suñu jëwriñ ñu ngi leen di woo bis boobu di si woo tamit daayira jaalibatul maraaxib bu Serigne Aline Diop ñu ngi koy woo tamit si bis boobu bis bi nag ñu ngi si woo képp ku naan asadu an laa ilaha illallah wa asadu anna muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi lay woo si bis boobu bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu ñenn bis bi kañ na nag samedi la le 13 mais ku ñuy sant jàmbaaru diine jàmbaaru islam borom lil Moustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnatoo xaraawa in ahmadu bis bi képp ku si teew yàlla na sëriñ Touba teew say mbir képp ku fa jiitu yàlla na sëriñ bi jiitu say mbir képp ku fa mujj yàlla na sëriñ bi mujj say mbir kon nag bis baa ngi noonu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu anta alkarimu lazi أبقي تكرما يا خير غادنا داني أفضل سبولي كلي بجاه الرسول لله مالكنا علي خير سلام منك الخبالي وارفع لزام يا زاب جودا وتكرمة ولا ترودنه يا مذهب الإلان دم النزام إلى سعي سخاب غدا ولا ترودنه يا مذهب الخلان سواك لم أرجو في سر وفي علان بحق وجهك خق لي رجاء أناني يا ربي كن لي وقود لي بردا غرادي وما التماس بي جاه المنتخى أنيلي صل وسلم على المختار في الكرامة وباسر النبي ناس مي أبدل